www.sangatv.com Mado dañuy jàll ci wàllu bien-être waaw yow la ñuy àndal pour nga waxtaane Camembert effectivement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee. donc euh, <laughs> hier dans ma page. donc dama demandé gars yi ne leen comme d'habitude ñoom nañ fi nekkal ils n'ont qu'à nous dire lan nañu bëgg ñu waxtaanee. donc on a eu voilà on a eu beaucoup de thèmes mais y a une dame qui m'a interpellé ci li nga xamante ne moom moo di ay kawas yoo xamante ne dafay xeeñ wala dàll yoo xamante ne dafay xeeñ te loolu am na kër gu nekk mën nañu simbi suñuy dàll pour xool. ben mettez vos chaussures déjà benn dàll gi nii xaw ma ku ko moom dàll bi te ñoo bañ a simmi rek en tout cas mos nañu def yeewu leen. Mm-hmm. Bouba Ndour ci may daal ma xam en <laughs> dëgg la xoolal keroog damaa xam juste. juste juste. ndax xasaw ci dindi ay daal ok donc yéen seen tànk si aéré. aéré moom du du simmi. xamoo xale ndaw yi. bu ko fi simmi bu ko fi simmi ay duudu. ay sa damay continuer sans sans daal yi sax. il faut juste savoir Pape Cheikh am nga fi dee. tey rek ngeen di dee. tey rek ngeen di dee. c'est que déedéet man man xam nga lan moo gën a dal sama xel non mais déedéet. Eh, yéen am ngeen assurance eh, waaye sama waa ji génneegul de. Eh, yow sama si yéen wóolu ngeen seen bopp léegi ñun bi après ma doon nga ñu euh, sonoo xet bi ki jël premier. dëgg la <laughs> xet. léegi on va remettre nos chaussures. lu mu doon nii. ah, ah! xëccu. am na yoo xamante ne da lay xëy ci ay xeetu tax. coucou Kia. allez donc Mado. va mesurer sunu ay xet. excellent. excellent. xëccul rek. allez jël jël jël jël sa bos. da ngay xenc ba pare après nga joxe résultat yi. Eh, Mamadou Ndiaye loxo bi. Exidex. kii yu tuuti. Exidex. te ñoo def tour de table. ñu ne ñu xeeñcu. ok voilà tuuti ñàkk bi. ok moom du xeeñu la bizarrement xeeñu la. ay daal yu bees te am na tuuti ñàkk ay daal yu bees ngeen sa jox ma. waaye nag ñii nag dañ ma dóor. mais yeewu leen noonu la sa jur yu bees dañuy sol sa yu ay daal yu bees dañuy sol. man soluma daal yu bees mais kam suba. aspiré na ma naa xëy yàlla. bii day xëy saw. njaboot njaboot bi njaboot daa gone ci sa. temps chez toi. Alfi nee na ma naa jël daal laa léegi laa ko daaj jël ah kon naa dagg étiquette bi léegi. waaye kii baa jël ko daal. merci. donc ngeen di ngeen ko gisee rek Pape Cheikh nekk daal buy xeeñ. ku jël ndaare loo xamante ne vraiment ñoom ñëpp ay daal yu bees dañ ma jox. mais Mado. ñi yëpp ay dàll yu bees la. ah ma doon rafetal nga nag non non non par contre bii day xeeñ. ñàkk xam nga kaña bu dee ay une semaine te xamul fan la deewee ci kër gi. nga koy seet voilà boobu lay xeeñ. xam naa parce que xet bu mu foofu la mais ma doon jour le jeu yow tamit. waaw ah, waaw ok ki dellu réalisateur bi la Pape Samba Thiam. Pape Samba dafa mu ngi ñëw ba fii doy na rek. vinaigre. voilà. nee na ma aj ko ci daal bi ak astuce bi. moom la ñuy def ak astuce yi quand ah, même pour mu mun ñu dimbali donc comme ni ñu koy waxee rek dàll buy xasaw dafa nekk surtout en période de chaud c'est vrai que nit ñi ci nañu gën a faral seen dàll di xeeñ lan moo ko waral c'est parce que les gens ils transpirent des pieds donc la dernière fois comme ni ñu leen ko wanee woon ak ki nga xamante ne moom moo di dermatologue boobu di docteur Ndiaye explique compliqué de ñuul comme par exemple bu fekkee ne da ngay euh, méngale ñàkk ñàkk c'est tout à fait normal moom la ñu wax la sudation mais léegi nag bu fekkee ne dafa ñàkk ba mu yàgg ba nga xamante ne si on n'a pas une bonne hygiène dafa am ay bactéries yoo xamante ne daf ci euh, dafay dem ba dafay am léegi ci biir bactéries yooyu nag moom mooy joxe li nga xamante ne moom la ñuy wax les mauvaises odeurs ce qui fait que pour éviter ces mauvaises odeurs là ñu leen di jox ay astuces yoo xamante ne euh, mun nga ko def sa kër vraiment des produits naturels qu'on a toujours chez am na parce que boo ñaqee dina la joxet mais comme ni ma la ko xee bu demee ba amuloo hygiène boo xamante ne dafa set maanaam léegi ci la xasaw bi di commencer ce qui veut dire que tout le temps nit ki buy sol daal li ñu war a def mooy danga war a sol kawas gis nañ ko ci euh, tànk Pape Cheikh bi dàll boo munti sol il faut toujours nga jiital kawas parce que daf lay permettre mu protéger li nga xamante moom moo di ñaq bi ak tànk bi nga xamante ne euh, dàll bi nga xamante ne vraiment tout le temps danga koy sol ak yooyu bu yàggee mun na la jox comme li ma la waxoon euh, li ñuy duppee ay bactéries léegi nag dañ leen di conseiller bu fekkee comme par exemple dem nga ba ñaq ba xasaw bi am ci nag booy sol sa dàll mun nga jël li nga xamante ne moom moo di poudre poudre dañ koy dégg comme exemple mun nañu wax talc lu mel ni maïzena ah, wala ay bicarbonate nga jël di ko def ci li nga xamante ne moom moo di sa dàll avant ngay sol sa dàll comme bu fekkee poudre la euh, da nga koy jël nga def ko li nga xamante ne moom moo di ci sa biir dàll et après tu mets chaussette di ko mën a sol loolu nag dafay permettre euh, poudre boobu dafay. Euh, dafay aspirer li nga xamante ne moom moo di mauvaise odeur bi ak ñàkk bi nga xamante ne moom moo doon euh, daal ba du la euh, dalati mm. léegi bu ñu demee ci li nga xamante ne moom moo di bicarbonate sànq wax nañ ko bicarbonate aussi baax na nga di ko def boo demee ba nga xamante ne vraiment dàll bi camembert na on te dit nga jënd bicarbonate cent lay jar nga appliqué ko ci dàll bi yëpp ba mu fees ñaari pàcc yi ce que tu fais da nga koy bàyyi nag mu fanaan euh, toute la nuit nga koy def boo xëyee le matin tu vas voir que maanaam tooy tooy bi amoon ci dàll bi bicarbonate garab bi daf koy aspiré non seulement bu ko aspiré dafay dindiwaale xet bi nga xamante ne moom moo di xet bu xeeñ bi nekkoon ci biir dàll bi boo demee nag ba nga xamante ne dañul on di dit que bicarbonate boobu boo ko defee ci biir dàll bi comme je t'ai dit la nuit tu peux prendre la chaussure nga dugal ko ci benn mbuusu euh, ñetti dërëm wala mbuusu 100 francs whatever et tu places ça au niveau du frigo ngeen bàyyi ko mu fanaan au tax ngeen di ko dugal ci frigo bi comme ni ma leen ko waxee woon déjà bicarbonate bi dafay euh, dindi mauvaise odeur bi dafay aspirer tout ce qui est humidité mais frigo bi dafay stopper li nga xamante ne moom moo di production de bactéries yi parce que bactéries fu tooyee ak yooyu fa la koy faral di joxe donc boo ko dugalee ci frigo bi ba bàyyi ko ci mu fanaan euh, donc euh, bactéries yooyu dañuy arrêter du ñu ñëwati et bu yàggee xet gi euh, dina dañ. on te dit aussi comme li ngeen di gis nii ay sachet de thé dañ ko xeeb mais dafa nekk lenn loo xamante ne c'est très important joxe fe ko fi astuce ba bataay yi léeg-léeg par rapport même à on parle de xet boo xamante ne mooy euh, xet bu neex ci dàll donc mun nga ko jël tu prends cinq sachets ah. boo xamante ne da nga koy xooli boo ko xoolee nga jël kon de xanaa Mamadou Ndiaye dix lay jël sànq ci tànk bu nekk gis nga boo jëlee Pape Cheikh nga dugal ko ci biir dàll bi mu nekk li nga xamante ne moom moo di sànq non non tu l'enlèves comme ça tu le prends tu enlèves nga jël parce que faut savoir xam nga tey d'habitude ça a de l'odeur soit ça te donne un thé au citron wala thé yoo xamante ne dafa am euh, une bonne odeur léeg-léeg voilà c'est parfumé donc boo ko ci bàyyee toujours la nuit cinq yoo xamante ne da nga ko ci def nga bàyyi ko mu fanaan boo yeewoo di nga gis ni que si euh, sachet bi ci boppam moom mooy absorber lépp loo xamante ne moom moo di humidité mooy tooy tooy bi ci nekk mais jar na ko boobu nag daf koy parfumer donc toi tu sentiras que vraiment la chaussure elle ne sent plus mauvais c'est des choses testées te nga xamante ne mu dal ñu moo tax jar na ko jar na ko mu jël engagement bi di ko wax te jëri lii fukki dërëm la lay dikkee benn mbuus bi kon xam nga ne jar na ko jar na ko donc am na leneen loo xamante ne ñun miin nañ ko jigéen ñi dañ koy boyelee mooy kopp kopp waaw. waaw mooy kopp bois yooyu nga xamante ne kopp am na boo demee ci yi ñu jox la ko léegi loolu liñ lay conseil mooy da ngay jël comme par exemple kawas wala baa nga jël wala kawas yi rek xam nga yéen seen kawas y a des chaussettes comme ay baa lay mel donc da jël kopp bi def ko ci ba mu fees nga dugal ko ci biir euh, bi nii nga ah, kawas bi takk ko takk ko voilà mooy seen kawas yu léger yooyu ngeen di sol ki donne l'effet de bas nga dugal ko ci biir nga bàyyi pouvoir boobu moom mooy. Euh, aspirer li nga xamante ne moom moo di xet bi mais tooy tooy parce que xet bi humidité bi moo koy jox. Mm. humidité boobu bactéries yi ciy dund la donc pour éviter loolu da ko ciy dugal euh, def ko ci tu verras que bu yàggee daf koy dindi yaa a autre chose qu'on a l'habitude de voir muy orange wala. Euh, limon limon lii boo ko xoolee comme par exemple boo xoolee sa orange comme der bi nii comme ni ngeen di ko gisee da koy jël toujours aussi nga ñoox ko ci biir dàll bi mais canton boo jëlee peau bu blanche bi moom ngay jël der bi xam nga boo xoolee orange lu jaune la mi ngi ci kaw mais boo ko dëppanee da ngay gis ne y a une peau blanche derrière der boobu nag moom ngay jël nga dëppal ko ci li nga xamante ne moom moo di fond wu euh, dàll bi voilà parce que lu weex loolu non seulement moom mooy absorber li nga xamante ne moom moo di humidité bi toujours ba pare dafay euh, dessécher day dindi tooyaay bi quoi et li ci gën a neex ça donne une bonne odeur parce que même orange ak citron parfois même quand ton frigo sent pas bon ou bien ta poubelle dafay dégage ay odeur yu mauvais dañ la naan xooliti jël ko nga sànni ko ci biir da gis ni boo tijjee xet gi waaw daf koy daf koy aspirer ah. donc daal bu fekkee nga essayé nga yëpp nag ñu xam ne wax dëgg fa yàlla xamante ne moom moo di les pastilles effervescentes là xam nga am na ay pastilles yoo xamante euh, dafay cancré mm-hmm. dafay monter mooy xeet yi ngay gis ñun comme par exemple nous les esthéticiennes quand fait la pédicure moom la utiliser ah. donc loolu ngay jël nga jël dàll bi ci boppam dàll bi nga xam ne xeeñ ne nga jël ndox nga ko ci biir dafa mel comme garab yi fuur quoi ah. am na yenn yoo xamante ne dentaire te ku xam luy dem ci ba tout le temps chez les dentistes c'est frais c' est donc da jël dàll bi nga def sa paanu ndox nga jël dàll yi xoj ko ci ba nga xamante ne xooju na ba fees nga jël comprimé yooyu def ko ci biir dàll bi nga bàyyi ko mu tremper pendant quinze à vingt minutes bés boo ko dindee nga bàyyi ko mu weew mu wow noonu toi même tu seras étonné parce que xeetu camembert bi nga doon am dafay dañ complètement et tu plus cette et après tu es suite à paire de yaa ko tey mm, mm, mm. <laughs> sinon bu compliqué ba compliqué am effectivement euh, voilà waaw y a des am na benn marque boo xamante ne moom waaw ñuy jaay dàll yëpp sa parfum bi ngay sotte ko mënoo ko pomper ci biir dàll bi wala c'est pas que dafay tourner moom lañ la wax après nag loolu moom mooy joxe li nga xamante ne bactéries yi parce que tooy dama tàmm di parfumer samay dàll ah mais duma am xet bu la neex pour mu am waa xet bi ma neex mais duma kamambe xet c'est pas les mêmes molécules. c'est un manque d'hygiène comme on l'a dit le dermatologue il l'a très bien précisé ñàkk normal la loo gis dafay war a ñàkk ñàkk la en fait c'est humain du camembert mais humidité bi la léegi ah. manque d'hygiène bi ngay ah, am ñoom dañuy moom moo lay jox li nga xamante ne moom moo di xet bu xasaw moo tax portez portez des chaussettes avant de mettre vos chaussures c'est vraiment la chose idéale ou saupoudrez mettez de la poudre mettez vos chaussettes et portez-les toute la journée boo leen di ñàkk xool ñàkk boobu boo ko tey poudre bi yëpp daf koy aspirer changer de chaussettes exactement ba pare ah loolu moom nga teg ko ci naaj naaj et puis sax Pape ba pare di sol carax ah, c'est extrêmement bon ça permet oui les champignons de ne pas se développer effectivement loolu dafa baax tout le temps boo amul doon la def sa kër del euh, hygiène balaa ngay sol sa daal waaw voilà et tout ça lu koy def à défaut mën nga jënd semelle il y a des semelles en cuir yoo xamante ne moom ngay jënd di ko def toujours jiital ah, semelle toujours di ko jiital man noonu laay def tout le temps man soit ma jël semelle perforée mm-hmm. wala cuir jiital taw xale sama yaay daf ñu daan dàq génn leen kër donc xale yaa ngi fii rek taw taw bata président des camembert laa woon à l'époque man ci am bu garaaw man <laughs> wéñi naaw di la biw donc il faut plus de propreté euh, euh, pour pour tàng tu mm, tu tu embrasser ton petit frère ndax tey camembert oui <laughs> mais bien être moom amul góor amul jigéen amul amul xale amul mag nit day toppatoo boppam ndax ci jaamu yàlla la bokk merci euh, pour ces astuces euh, Mado euh, jëm ci wàllu camembert <laughs> dalu Pape Dodo ak Mamadou Ndiaye dañ ko béré fële yóbbu ko ci naaj bi a xet waaw yaa gën a camembert nga yow ngay am prix Nobel de camembert waaw du Mado bi daal <laughs> li juste mooy doog a jot wala 50 ans